بكوني عبد الله وهو زين yéene nañ ko sunu sëriñ bi ah, waaw waaw it maanaam lu raar lu gën moom lu ñu romb wala lu ñu gis moom boole ko ci ci ci yéene ji ah, waaw ah, waaw waaw waaw ay ay centre ay euh, table basse euh, Versailles waaw tapis yi am na ay kertandañ ñu mujj mooy sunu sëriñ kat bu dikkee ndax xam nañ bu sax toog ci moom waaye sañ-sañ gi muy def jëm yoon wii nga xam ni moom mooy yoonu ko dénk yoonam yi ak njabootam yi li mu yéene moom lu ñu ko jox bu xasee ba dikk moom du dem jëm ci lenn waaye boo amee sab sëriñ da nga koy yéene jàmm da nga koy yéene la gën tax naa ba ñu tàmbalee ne ci jëf ji te di ko waajal di ci dox moom ñu ne kat dañ koy équipé ba moom bu xasee ba dugg si ci kër gi moom du wuti leen fenn ba tax na ñu ci biir ferme la ah, waaw ah, waaw bu ci rek. laati yëpp di wane jéem a wane sunu cofeel waaw waaw yii ay cristal la ay assiette ay porcelaine waaw waaw luy couvert lépp luy set de table daal moom mi ngi fi yii pour wasalit raxasu yi waaw ah, waaw lépp lu lu lu royal wala lu dernier cri lu rafet lu nekk yéene nañ ko ko te noppee bu ñu am na garde de pare ah, waaw euh, ay verre ak seen fontaine ay bay side la bokk ci cuisine américaine bi mais am na beneen wala yeneen sax la waaw oh. ci lépp maanaam maison clé en ay lépp ñoo ko équipé amul dara lépp bees la lépp lépp lépp kii mooy cuisine africaine bi lii frigo la boo ko tegee day doon side by side waaye deux compartiment la côté bi du frigo côté bi du congélateur wut nañ ay ay plat bu séddale ay boolu chu cuisinière bi nekk nii. ci service ne solaire moo koy waaw chambre bu ci am na salle de bain am na salle de bain waaw lal yi it bu ci ne daal am turam waaw ah, xam naa lépp nag dinaa la ko gën a ak ñi ko jëf ndax mbokk taalibe yi jëf ji ñoo ko ànde waaye am na ñoo xam ne particulièrement ñoom kenn mënu leen ci waaw ah, ba ci meuble bu ngeen xoolee ah waaw eh, mais bu ci ne dafa am vissure piscine bi am naa lamp yi dañ ko taal léegi beneen bi jardin waaw jardin néeg boo ci gis rek ci quatre chambre bi ci bâtiment bi moom moom it je suis piscine salle de bain baa ngi nii am ndam luminosité boo bëgg rek waaw waaw ñëw ci dressing bi dressing bi dressing bi xam ne kat di tuub sax di tuub ci yeexaayu mbubb yi ndax ndem yéene ji mooy jox suñu sëriñ kër ñu ma ko waxee rek ci sama tàmbali kàddu mais yéene ji mooy bu dikkee bañ a dem wuti leen taxoon mbubb yi mu mel ni teelu ma koo jox ni danga koy ranger fii ba bu ñëwee gis ay mbubbam gis ay dàllam ni lii koy xool roode la lii waa Touba kër Sëriñ Touba muy seen yéene weer yéene gi sax ëpp na lii yokk la ak xeet parce que sëriñ sax waaw lii nii lii nii moom daanaka trois cent jëm kaw au de ça un waaw yokk nii lii ay voile lii ay basin la permanent alluur waaw ay xeeta ci nekk lii kol la lii ay dàll la ak pochette waaw yii da ji lii fuuf mel ni li ci kaw ay serviette la différentes tailles drap plat e, drap housse housse fédorée lii nii fer à la serviette yi it am yoo xam ni suñu cofeel suñu digg suñu sëriñ soxna yi da dëgg yi dëgg yi dëgg yi e, soxna yi da deuxième étagère bi Baye Fall bi soxna yi da sang bi fële na la soxna da cantaakoon bi muy salle de bain lii nag ngeen gis waaw waaw fañu joxeel la ba waaw kado la donc serviette naa la sérénité loolu lay njëkk wax bonjour bienvenue amour bonheur santé waaw déodorant de chambre diffuseur automatique diffuseur euh, ak bant euh, lii ay bougie la yoo xam ni ah waaw what a wonderful life waaw quelle vie bu ci ne am na lu muy signifié yoo xam ne dafa am ay senteur boo xoolee the home of happiness la maison du bonheur what a wonderful life Quelle belle vie, quelle merveilleuse vie. Enjoy happy moment of life. Euh, réjouis-toi des, des bons moments de la vie. ah waaw noonu la demee yii moom ay décoration la moo ci tegee waaw ah, waaw boo taalee gën a épanouir waaw gën a am calme nekk ci waaw xam nañ ni moom ci àjjana la ko Serigne Béthio dugal ci la ñu waaye saa su rek moom taalibe moom war nay xool nu muy ñoŋale ak taalibeem ak nu muy wanee cofeelam jëm ci sëriñam waaw ay tapis de la tapis de rechange waaw nga xam ni moom waaw ñu ko changé mën ko fee teg waaw ay ay ay ay différentes la à plusieurs couleurs lii panier la lii table de repassage la te noppee bu ñu waaw oh, lii yëpp mooy coiffeuse bi waaw moom jéem nab na bi rek toog décoré waaw waaw euh, plateau bi ak lu jëm ci géej xor coquillage waaw ça renvoie à mer te loolu it ah ndeen piscine am na fi waaw mu mel ni boo nee boo gisee lii xalaat ndox te c'est joli waaw lépp rek jéem décoré jéem a sëriñ bu duggee ci biir këram waaw xam ni waaw elle est elle est chez elle et une maison bien équipée avec dëgg euh, yàlla des des appareils électroménagers de dernier cri mais choisi avec le cœur ak Serigne Béthio waaw lépp luñ ci def rek moom dañ koo xeeb de manière méticuleuse nag lañ doon xool waaw lan ci def ngir sax am sunu mbiru Serigne fii ça donne la la waaw waaw li may wax waaw yi waaw bu ñu ko gis waaw waaw waaw fii côté bii jardin fi ndax ah, Eh, solaire moo koy dawal lépp waaye am nañu groupe 66 KVA boo xam ni moom kër gi du du manqué courant mukk waaw courant moom électricité moom du fi du fi waaw du fi jafe waaw waaw. daal léegi sax di ñaan maanaam. lépp di mbégam waaw jéego bu ci sëf lépp lu ci def rek def nañ ko bi ma ko waxee jéem cee wane suñu cofeel jéem jéem a sàkku mbégam kon lii mooy néegam ah waaw di xeet di ko xeet tey tuub parce que luñ ci mën a def rek moom moom day ànd ak tuub da koy tuubal ci lépp ci lépp ndax sëriñ bi moom li ñu jàngal mooy mbirum yàlla ak jàng daal lu mate waaw kon ñun dañuy def ci sunu matari mu ñuy defal ci bi waaye transat yaa ngi nii parce que jardin bi euh, daal jardin bi annexe baa ngi fi Euh, ci image yi njëkk wane gis ngeen clôture boo xam ni euh, dafa am ay ñax ci biir loolu nag euh, clôture la boo xam ni daa tax ko kër gi ci wet wi ndax kër gi bi ma ko gisee mu dugg sama xol ma yéene ko sama sëriñ dama gis ni ñetti côté yépp côté kër gi dafa taqaloog rue nga xam ni kër gi takkaloowul ak dara lu dul wet gi mm, ma gis ni nag ah sama sëriñ yéene ji mooy lu mu am muy këru kilifa kër gu yaatu te it ma yéene sama sëriñ bu këram yaatoo it dara bañoo bañ koo gàllankoor ci gis walla ci ci yaatuwaay wala lenn bañ ko tiim tax na ma yëg ni kat ñi moom clôture bi dañ koy jaay waaw mu tax ko tax ko kër gi ma jënd ko fi mu nekk c'est déjà clôturé te am na teen kon kër gi mi ngi def mille cent 1200 mètres bi bii 600 mètres carrés moom laa ci boole ngir yéene gi kat mooy dara bañ a wër sama sëriñ waaw ndax ndeem kenn la ah foofu lu mu am moom di càppaaculi mbokku taalibe yi boobaak léegi ñu ngi daw ku ne ndeysaan ni xorondom te loo ci def rek xeeb ko waaw moom dangay dem ba sax danga leen di yërëm waaye bu ma fàttalikoo li ma sëriñ Béthio wax ni ma yërmande ji mooy jëfloo mbooloo mi ndax dama ne ko man kat suñ gis naa la ni ngay doxee du ma yërëm kenn ku liggéeyal sëriñ Touba mu ne ma yërmande ji mooy jëfloo mbooloo mi te lii mooy suñu njariñ sëriñ Béthio moo ni ma yoon wi bëgg ak pasteef la yoon wi jëf rek la kon yàlla nañu ko dimbalee ni ñu it yàlla nañu am xolu jëf te bañ a toqi te ah damaa jàpp ni sunu sang gisagul dara ndax taalibe yi dañ daan ñëw di indi sañ Béthio jëf ma ne ko cuun bu ma jëlee kàddu ne ko lu ne lu baax lu gën lu ne moom mi ngi guur yow kon ni ma gëmee ni mooy soxna noonu la ma noonu laa gëmee ni lu baax lu gën lu ne mi ngi buur ngir jëm ci soxna Aida te ñun kat ñoo bëgg doon taalibe yi nga xam ne ñoo ko koy jóor ndax mooy sunu njariñ maam Cheikh Ibrahima Fall nee na ba keroog ñuy fay wax bàyyi jëf te sëriñ Saliou Mbacke mi nga xam ni lu ñu xam ci moom wala lu ñu am ci moom moom mii di sëriñ Touba sëñ Béthio fekk ñu fa mu fekk dimbali ñu ci jëmmam ji moo ne jëf lu mooy liggéeyam jëf ju ne xam na na mu toll ak lañ cay fay te du jaawale ji fi kenn ak moroomam kon ci loolu la sëñ Béthio woo soxna Aida Saliou dëgg-dëgg jëmi sëriñ ci loolu lañu woo waaw moom xuloolowul kenn xeexloowul kenn neen nañ ne fat te ne ci waar wi kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy sant ñu ngi bég ci moom sagal nañu sutural nañu waaw ñu ngi koy bégee te koy ñaanal mu yàgg si lool te wér ak waa Touba